dellu kañaat bakkaat wayaat dellu sulliwaat ndami soxna jaaraaki jaloorem nu ñaaxuwaat jaaratulaa la voisine de mooy turu documentaire bu am solo bi leen Serigne Moussa Diankala di baaxe def ko muy seen yóbbal ci màggalu poroxaan gi muy ndigal lu yàgg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 mbokk yi ne ko ñëpp teewlu lépp lu ngeen soxla woon a xam ci soxna jaaratulaayu Bousso rawatina école bii nga xamante ni ci la ñuy tàggat ndaw ñi nga xamante ni ñoo jël seen tànk teg ko fa nga xamante ni fa la ko soxna jaara tegoon muy documentaire bu am solo ngeen mën di ko topp ci mbooleem télévision yu nekk ci réewum Sénégal ànd ci ak Moussa Diankala na ko ñëpp teewlu documentaire bu am solo ay gëstu yu yaa mu ànd ci tamit ak borom xamxam yu fasantikoo mbooloo mu takku yëkkati ci ay kàddu ba ci sax xalifu général di Mouride mbokk yi bu am solo bu leen Moussa Dieng Kala di baax ci màggalu Porokhane gi ne ko ñëpp teewlu. kuréel cër ku màgg ngi. Jaratula la voisine de Dieu bientôt. sur votre petit écran te ga ak njaxlaf ga ah. yin moo di gànjaram